أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ndax dañuy wax ne da koo sos neel indi leen fukki saar yu ni mel yu ñu sos te ngeen woo ku jàppandi ci yéen ku dul yàlla su dee ñu dëggu ngeen فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون suñu leen wuyuwul nangeen xam ni lañu wàccee ci xam-xamub yàlla ji la te amul jenn yàlla judul moom kon ndax dangeen dul nekk ñu jébbalu man kaana yuridu alxayaata addunya wa ziinataha nuwaffi ilayhim acmaalahum fiiha wa hum fiiha laa yubxasuun koo xam ne dunduk àdduna gii la bëgg ak taaram danañu leen fay seeni jëf ci biir dund googu te duñu leen ca wàññil أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ñooña ñooy ñi nga xam ne duñu am ca alaaxira lu dul safara lañu liggéeyoon màbb na lañu jëfoo nit neen na afaman kaana ala bayyinatin من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مذية منه إنه الحق من ربك ولكن ولكن أكثر الناس لا ndax ñooñu danañu yem ku sukkandiku ci leeral gu bàyyikoo ca boromam te ab seede bu bàyyikoo ca boromam di ko tari ca moom te la ko jiitu téereb Muusa nekkoon fi di imaam di yërmande ñii gëm nañu ko waaye ku ko weddi ci kuréel yi safara mooy nekk dig dajeem kon bul nekk di ci werante ndax mooy dëgg gu bàyyikoo ca sa borom waaye li ëpp ci nit ñi duñu gëm